asalaamaaleykum man Mame Birame Faye laa tudd euh, ma dëkk Dakar Plateau may militer ci parti APR Dakar Plateau euh, nekk ci le directeur général du CICES monsieur Salif Keita pour gunge ko ci euh, mission bi nga xamante son excellence le président de la république mom la Denk, nous ñu ñaanal ndam parce que ndamam mooy ndamu Dakar Plateau que ça soit jeunesse que ça soit adulte aujourd'hui gis nañ loxo yàgg nañ liggéey ak moom nag euh, te kenn du yëg di ko demal si ay affaire di ko accompagner di ko taxaw si lépp mais aujourd'hui nag dañoo taxaw fësal suñu bopp parce que nag euh, am na ay ndaw yuy woowee seen bopp nee nañ euh, jeunesse APR Dakar Plateau tant pis je sais pas may voilà euh, parce que tout le monde l'a fait rek ñoom ils doivent le faire parce qu'ils ont entendu dégg nañ ne Pikine tant pis Guédiawaye tant pis Fouta tant pis et pour ñoom automatiquement rek plateau tant pis c'est pas comme ça du non. mais en plus soo est plateau tant pis d'accord xeexal sa xeex mais cher, soo koy cher. Donc cher koy deg, ci cher da ci dignité Boum la tax a wax li nga xamante ne parce que tey ñoom suñ ne ah le directeur général du CICES e embauché ou la recruté ou la jeunesse daf leen bàyyi ci ginnaaw daf leen laissé en rade faale wu leen toppatoo wu leen loolu nekul ay wax yo xamante tegu na wax yu yenuwul maanaa la wax yu tegul fenn la parce que parmi ñoom am na si benn ndaw boo xam ne damay tudd turam parce que man dama ko jàppee sama collègue sama collègue la man je travaille maa ngi liggéey si ses sama ginnaaw am na ay jeunes yu fi nekk di liggéey si ses moom moom may waaj tudd Dimas Diop di liggéey si ses kon sama collègue la non moom mu ngi bokk tey si groupe boobu di wax ne directeur général bi daf leen bàyyi si ginnaaw jàppalewu leen jëlu leen kon donc loolu damay gis ne ay ay wax la yo xamantene teggul fenn man yaakaar naa combat bi et pourtant combat bi biñ koy ne dañ koy mëne ñuko ko initier man mi c'est la bok certains jeunes ont appelé ñu tok à l'issue d'une réunion qui s'était tenue chez René lañ tok ñu taxaw ñu ne ah war nañ taxaw au moins ñu fësal suñu bop wane ne parce que président lañ waxone que ne daf ñu faté loolu lañ waxone le combat mais so bëggee mener le combat noblement da nga président da dolel suñu leader su doolelee suñu leader ñoom dinañ mën a gën a def ay recrutement dinañ gën a mën a jàppale ndaw yi mais ñoom li nga xamante ne loolu la leen président dénk ñu ngi si waslu ak parce que ñu ngi si recruter ndaw yi ñu ngi jël ndaw yi am na onze ndaw yoo fukki ndaw ak benn yoo xam ne ñu ngi yeewoo plateau dëkk Dakar plateau di liggéey si ses donc moom mu ngi def le le le maximum mais nag mun na gën a def kenn weddiwu ko mais suñ bëggee mu gën a def léegi kay ñaxtu bi mo wara nek naka président gëna dolel, mais man pour man suñuy classe kay ku ñu waroon classe ngeen baal ma le maire le ministre le leader de la coalition Benno Bokk yakar Alioune qui est ministre de la pêche euh li nek ci ginnaaw mo gëna yaatu pour mu recruter ay jeunes et pourtant defuko pourtant c'est pour pourquoi kon ndaw yoy ñom attaqué wuñ Alioune kon affaire bi dafa xaw a doy waar dafa melni ni dañ leena manipuler amna ñu nek seen ginaaw léegi nak ñun loolu lañu ne da fay dak parce que DG Salif Keita bu fekke ay ndaw rek amna ko tay ji li ngeen fi gis ni jusque dañu woté une réunion stratégique pour préparer ben assemblée générale bu mag bu ñu war a woote si bërëb ñu taxaw muy rebeus fi lañu wara wotat assemblée générale lu ci kanaw rawul ay gëtt dinañ ko woté mais c'était une task force qui bo xamantene le directeur général Salif Keita Nous fi fait biñ on a trouvé nécessaire faire une déclaration profiter pour faire une déclaration wax que ne ndaw yi nañ une nañ dal ndaw da ngay dal ne nga dal rek ak dal bob dina la yoon. Euh, la politique c'est la loi du plus grand nombre nous sommes politique ay nombre la.

def une démonstration de force wan au président de la république wan à l'opinion publique que ces n'dawla, que ces jeunes là dafa nek ñoo xamante juste dañ leen di manipuler xamuñ sax fu ñuy taxaw quoi ñun lool mom mo nek fas nek suñu combat ah suñ sañon nak ñu ter leur combat ñu bàyyi di essayer de ternir l'image de nos leaders ku melni Salif nga xamante lu baax rek la nek ak ndaw yi di leen jappalé dafa leen di jàppale ba entreprise bi mu nekkoon bàyyiwu ko ma ne la utal na leen formation certains jeunes utal na leen ñenn ñi ay stage ñenn ñi mu ngi fexe na ba entreprise maye vingt projets pour les jeunes de Dakar Plateau nañ ñëw ñu profiter si loolu parce que ñun ñëpp ko moom ñun kese moomuñ ko ñu ànd ak ñëpp ko moom pour la jeunesse de Dakar Plateau ñun loolu moo fas yéene nekk suñu combat. xam nga lu tax ku boot bukki ku boot bukki xaj mbaw la olof Ndiaye moko wax ku boot buki xaj parce que ñom ñoy les braves ñom ñoy les plus déterminés ya Mbaye Salif Keita ñom ñoy les plus déterminés ñom ñoy les leaders ñom ño taxaw ño fi nek ñom ño présent ñeneen ñi amul kenen Dakar Plateau amul kenen so génnee Salif Keita génne Yakham Mbaye amul kenen c'est vrai y a notre frère qui est dañ koy cité René Pierre jàmbaar la mu ngi si waar bi mais peut-être mu ngi si si yoonam ñoom lu tax tudduñ ko wala tudduñ keneen ak keneen en tout cas lu ma leen mën a wax euh, Dakar Plateau politiquement parlant soo ko tuddee rek xel yi si ñaari nit lay dem muy Saliou Keita Yakham Mbaye